tàmbale nañ ko ci bisimilah rahmaani rahim eggale ko ci alhamdulilahi rabbil alamin te di ci gërëm nag préfet mi nga xam ne moo fi jóge léegi ak nag jiital ci gërëm bi Amadou jara Amadou jara ministre maire de commune Pikine ni mu liggéeye ak ñun liggéey bu set wecc la lépp lu muy def dinañu woo waxtaan ak ñun ñu weccoo ci moom xalaat ndax commune bi moo ko ñor population commune bi moo ko ñor comme ni ñu population bi ñoree noonu la toog waxtaanee ak ñun lépp teg ko ci yoon nag amul dara lu ci lëndëm liggéey bu rafet la ah, ah, maire Amadou Diarra def di jiitalaat ci nuyoo bi mooy président Macky Sall mi nga xam ne lu jinjaag mooy jaar ñëpp xam nañu président Macky Sall bi mbas mi duggee fii ba léegi motuwaay bi mu ci jël yëpp gis nañ boo gisee bi mu lu muy jëkk a def mooy woo opposition bi toog waxtaan ak ñoom ñu jël ci ay matukaay opposition tamit ñu gërëm leen sant leen bi leen président woowee dañoo jël cadre politique teg ko fële ñëw wuyu président Macky Sall bi ñu ñëwee wuyu président waxtaan ak ñoom ñu nangu waxtaan bi moo waral bu ñu min ah, maire Amadou woowe woowee dañuy ñëw wuyu ko waxtaan ak moom waxtaanuñu ci cadre politique waxtaanuñ ci dara wax waxtaan bi ci waxtaanu feebar bi nga xam ne daf fee ñëw jaaxal àddina bi population bi ñun ñii ñu war koo taxaw ñu leen a taxaw pour jàppale leen ku nekk fa bàyyi sa ambition ñu nekk benn bokk ndey bokku bàyyi te Amadou jarakat teg na ko ci yoon bu ko tegul woon ci yoon yuux yi dina bëri réclamation dina bëri coow yi dina bëri waaye Pikine Nord kenn déggu fi kenn di fi coow wala di fi wax lu neen ndax liggéeyam bu rafet ndax bu ko deful woon ñi fi nekk lu ne la ñuy wax du teemu li yoon def santaane moom lay def waaye nag du teemu xajam ndax koo xam ne mu ngi yore ñam di wax wala yore suufam di sëlla mën na xajamal même bu jaaree ci yoon bu ko neexee xajamal di gërëm nag Benno Bokk Yaakaar bi nga xam ne ñoo ma jiital ci lii nga xam ne lépp lu ñuy waxtaane wala lu ñuy def même balaa ñuy dugg ci panel bi dañ may woo nangam ak nang ku bëgg a wax ba nga xam ne lii yeggale nañ ko ci alhamdulilahi rabbil alamin te yaakaar naa li gënoon a metti jàll mooy sélection nit waxtaan ak délégué de quartier yi loolu moo gënoon a metti ak tànn nu mu mettee foofu moo gënoon a war a metti te loolu yëpp yàlla jàppale nañu ba teg nañ ko ci yoon ci organisation Amadou Diarra bu rafet bi nga xam ne def na ko fii ci commune bi te ñu àndandoo ak moom kon nag du ñu def dara lu dul lii nga xam ne mu ngi ñëw te askan bi moo ko moom du man maa koy jëriñoo du ah, ah, monsieur le maire moo koy jëriñoo ñu fexe population bi ku nekk ànd ak yar ànd ak discipline ba nga jël li nga war a jël nga yóbbu ko sa kër mu bañ a am benn coow comme niñ ko commencé ñu yeggalee ko noonu te yaakaar naa loolu mooy am ndax dañoo teg lépp ci yoon maa ngi leen di gërëm di leen gi xam naa gi xam naa ne balaa ñuy wax dara wala balaa ñuy dugg ci dara lii weesu ba pare ñu la teg sa kër doo génn loolu mënatoo am benn programme boo xam ne mën nga koo wax ci lii ñëw te lii passé wul foog lii weesu ba pare bu lii weesu ba pare ñun dañoo bokk ndey bokk baay bokk Pikine Nord kenn mënu ñoo xaajale ay gis-gis rek gis-gis yi rek ñoo wuti waaye ñoo bokk ndey bokk baay dara amul lu xajam suñu diggante loolu amul benn problème lii daal li nga xam ne moom la ñu dëgmal lii te yàlla moo ko fi indi moom moo ko fi war a moo ko mën a jëlee fii nañu àndandoo ñaan yàlla